asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi maa leen di ñëw di leen nuyuwaat di leen ziaraat di leen wax ne tey moom dama leen indil euh, comme kii bu ngeen di gis ni seen écran bi mooy euh, Waddudu waaw Waddudu lañ liggéey si bind mu bari daal bind mu bari lañ ko liggéey te boo leen déggee Waddudu euh, day dox si wàllu fatxu wàllu ubbeekaay manam nga nek di liggey centre nga ci liggey doxut wala nga nek si place di liggey bëgg am yokuté nga nek si parti politique bëgg fa nek ko xamné ku ñuy gis lay doon inshallah ma leen ni diggal ngeen jaro, am ci euh sangat bi ñu wax wa dudu mom day and ak jaaro jaaro yi ngeen gis ni de mom day and ak jaaro jaaro bi dang koy def ci bir safara ci manam bo jëlé safara ci da ngay jël jaaro bi nga def ci bir safara ci jaar ba dafay nekk juróom-ñaari fan ngay sangoo sanget bi juróom-ñaari fan dégg nga su ko defee boo demee ba si juróom-ñetteeli fan bi nga jël nag jaaro bi nga takk ko incha allah ndax lii nii dafa nekk sama yëfu bopp sax ndax man mii di waxee yéen maa ngi koy jëfandikoo di ko utiliser te ne woon naa lépp lu mu am dinaa ko séddoog yéen dégg nga bind bi nekk na bind bu yàgg bu métti nag boo xam ne mi ngi fi dañ koy jël nag def ko si ay ay butéel dégg nga di ko séddoog doomu aadama yi képp ku si yàlla eh, kii nga bëgg si rek nga jox ko ak ñun ñu xool ñu si dimbalante incha allah waaw nekkoon nag lu ñuy jaay nekkul lu ma dama koy wax toujours ma sëriñ du ma koo xam ne damay toog ñu may ran du ma koo xam ne damay toog di accueillir nit ñi wala nangam ma du ma sëriñ déedéet dama bëgg mu leer rek duma ma sëriñ damay dimbalante ak doomi aadama yi rek nekkul sama profession boo xam ne moom laa jël pour def ko li ngeen gis ni itam moom ginnaaw bu nga sangatoo sangat ba pare lii nii su looy suuroo la benn cuuraale mi ngi fi day suuroo la boo xëyee balaa ngay génn di dem ak tam guddi balaa ngay tëdd dégg ngeen incha allah ndax man mii di waxee yéen maa ngi koy jëfandikoo te alhamdulilah maa ngi gis sama bopp bu baax maa ngi gis ay soppeeku maa ngi gis ay avancement kon nag maa ngi leen ñaan yéen ñi nga xamante ni itam samay abonné ngeen dégg nga di ma topp chaque jour di ma seetaan kon jaadu na saa bu ma amee dara ma ñëw indi ko fii fas ak yéen li nak tay lu ko tax jog jóg mooy kay rek kay rek bés bo ci bés boko ko yi nekkee diko jëfëndiko inshallah incha de da nga gis ay soppeeku si walu bop lepp lay yëngutu dana soti lepp lay ut si kattanu suñu borom inshallah allah ko am ndaxte bala ñuy wax dara lañu jittal yalla ci lepp waaw bind bu bari la nak fexe ba am ci ñu ko jël denc ko waaw ku ci yalla dogal tamit euh, nga war sé wara mëna am da ko ci am buñu nit euh, rappeler ci numéro bi wax nañu ah man ka dama soxla nangam si càngat bi ni dama see bëgg su ko defee inshallah ñu xol naka lañ si waxtane ba nga mën see jot bu soobee yàlla waaw comme numéro nga waxé di lañ ko rappeler rek man duma sëriñ ndax am na ñoo xam dañ may wo di ma laaj fo nek pour pour ñu ñëw fo wala nangam man duma sëriñ bo xam ne damay nek di ñaan ak wala yi démé non wala yoy non dédé li ni objectif la rek bu ñuy def buñu doomi adama bi soxla nak nañu ah, man kat bëgg na nga defal man nangam solo ko nga defaral ma ñu mën nañ ko defaral bu nekké fenn ñu fexé nañ ko yone ba man ci jot loolu moom mën na mën na nekk loolu yaakaar la rek te ku nekk amna droit pour ñaan ñaanal nit ñi wa dañuy léral rek dañuy léral si ñu xamul euh, yaakaar na dañu tok pour nit ñi di ñew ñu leen defaral wala yu démé non non non demewul noonu ndax ñu ci ay yenen mbir yo xamné ñu ci nekk suñu yenen métier waaw kon nak euh, mbir mi la doon leeral te li leen fàttali ne mbir mi day ànd ak jaaro moo xam nga am sa jaaro bu la neexee ba bu amee sa jaaro baax na bu amul sa jaaro itam ñun mën nañ laa fexe ba nga am si jaaro yi nga boole ko itam cuuraay bi cuuraay moom mi ngi fi cuuraay bi itam dafa am nu koy liggéey si ay kii alxuraan boole koog moom nga koy suuroo dégg waaw lii nag laa ne woon naa leen ko ñëw wan leen ko eh, képp ku ko soxla rek mën na ma def eh, signe si numéro bi wala mu envoyé ma si message si whatsapp bi ñu xol nañ ci dimbalante ba ku ci nek man ci am lu mu am waaw mi ngi ni dal mi ngi euh safara la bu fi nek nak bëgg ñëpp man ci jot waye nek nak lu ñuy jaay nak manam bu fekke nag ci soxla mën nga ñu nga man ko soxla na ci dama la bëgg wéxalé nangam fa bëgg nga may ma ci deng su ko défé ñu leen ci ndax li bindu bu bari la waaw kon nak mi ngi nonu ma ngi yem fi di wax ni wax deug sopna leen bëgg na leen lool xam naa ne bëgg ngeen ma sopp ngeen ma maa leen di ñaanal di di sàkk ngeen ñaanal ma kon asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu.